من حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها أوداء الشمليل نين حرف تشتو دجلة نقول في رأي تشتو دج القطعة الخارجة من الجبل دنا في رأي تميت لسو الناقة الضامرة القوية لين قوم دفعوا sew ba noppi dëgër gileem gu jigéen mu ne axuuxa axuuxa mbokkam abuuxa mooy baayam mbokkam mooy baayam loolu dinañ ko leeral min muhajjanatin mu ngi jugee ci tànnee fi giléem maanaam ay ay waajuram mooy baayam ak yaayam ay gileem yu tedd lañ ci cosaan yu baax lañ bokk raas bu baax la wa amuha baayam bu ndaw xaaluha mooy nijaayam baayam mooy nijaayam tamit loolu dinañ ko leeral xaw daaw ku gudd ginnaaw la wala ku gudd ak doq la waaw ginnaaw gi dafa gudd wala nga ne doq gi dafa gudd chimliilu ku gaaw la ku woyof la te gaaw daa bëgg wax ne Euh, gileem gi dafa dëgër gileem gu jigéen gi dafa dëgër ni catu doj di dëgëree li génn ci montagne ni muy dëgëree noonu la dëgëree bokk tamit ci raas bu baax ginnaaw gi ak dox gi dafa gudd mu woyof te gaaw ñoom ci seeni cosaan arab euh, dafa daan taamu ci bu ñu amee xeetu gileem bu baax duñu bëgg ñu koy rax ak yeneen maanaam dañuy bëgg rek ñoom rek ñuy jaxasoo weneen xeet wu bokkut du leen rax bu ko defee ci giléem na comme mala la wàllu sëy amu ci fuñ ci yam comme ni amee ci li nga xam ne day am ñoo mën a sëyal ak ñoo mënut a sëyal pour ci giléem moom lépp mën naa nekk mooy giléem mën naa sëy sax ak yaayam mën naa sëy tamit ak kum bokkal sax ndey ak baay loolu moom duñ ko tare foofu foofu sax dañ ko fay taamu ngir bëgg sàmm seen race boobu wala seen xedo ba dara du leen rax loolu moo tax ni ko misaale fii des na ko mën a dégg moo tax mu wax ne euh, axuha abuha jooju buñ ko bëggoon a misaal moo ñu ne dañuy am gilém goo xam ni gilém gu original la maanaam race bu baax la bokk mu topp doomam bu jigéen gilém gi moo topp doomam bu jigéen doomam bu jigéen boobu juru ñaari góor ñaari gilém yu góor ñaari gilém yu góor yooyu nag benn bi mooy wëlbatikuwaat tëbaat yaayam xam comme ci mala la loolu amul amul jafe-jafe mu ne benn doom bu góor boobu mooy wëlbatikuwaat tëbaat yaayam léegi xam nga bu fekkee dafa tëbaat yaayam mu am doom ju jigéen naaga googu moom lay melal fii ci way wi naaga googu mu jëjudd moom lay melal foofu ci wayu wi léegi naaga googu la ne soo xoolee ki ko jur day nekk mbokkam ndax dafa mel ñoom ñaar ñoo bokk benn ndey waye day nek baayam it ndax mom moy kiko jur benen gëléem bi ci dess wa loolu mom la borom tere bi ni misal ne suratuhuma ne akhuha abuha wa ammuha khaluha ne suratuhuma an yadriba fahlun bintahu fa bi ba'irayn fa ahaduhuma أمه فتأتي بناقة فأحد البعيرين أخوها وأبوها وهو الذي ضرب أمه فأتت بتلك الناقة فهو أخوها min ummiha wa abuha bi ci des gilam ga ci des nag ndax xam nga waxoon naa ne doom bu jigéen boobu kóoy mi jur wala kóoyu gilam bi jur dafa am ñaari góor léegi beneen góor bi ci des boo ko dee xool ak naag gi dafa mel ni baayam bu ndaw la ndax nga mook baayam mook góor gi jul giléem gi ñoo bokk ndey ak baay kon baayam bu ndaw la euh, boo xoolee ci beneen wut bi tamit day doon nijaayam ndax fi mu ne giléem gu góor gi mook yaay naag gi boo ko xool ñoo bokk benn baay kon day mel ni nijaayam la da waxoon mu ci tàmbali woon ne giléem ku giléem gi moo am doom bu jigéen tëggu kon dafa mel ne comme ñoom ñaar ñoo bokk ñoo bokk maanaam moom góor gu ñaareel giléem gii daal moo yaay nag gi ñoo bokk ñoo bokk baay kon day nekk nijaayam loolu am na ko ko melale noonu moom lay wax sax ne wal bairu faani ammuha li annahu axu abiha li abihi wa ummihi wa xaaluha li annahu axu ummiha li abiha loolu noonu la ko misaale <coughs> euh, nee na yamshi day dox alquraadu wete weteñir mooy lu muy wax comme xeeti ay kuttule doon nga xam ne ci xeeti male lay nekk fas yu mel noonu aliha ci kaw giléem gi summa yuzliquhu dana ko tarxiisloo dana ko daaneel minha ci giléem gi labaanu ab dënn waa ak xarabon ak ay wet mooy xóot-xóot yi nekk ci faar yi diggante faar yi diggante yax yi zahaliilu yu du way rattax waaw ah, da dane naaga gi daal wetañ yooyu dañuy dox ci kaw duñu am fu njàppand bu ko defee dañuy daan ndax naaga gi dafa duuf ba nga xam ne rattaxaay bi ëpp na wetañ wu nekk ci kaw nag du am fu mu jàppand bu ko defee day daan ayraanatun dafa mel ni mbaam àll xudifat woo xam ne sànneef na ko bi naxdi ca aw yàpp an urudin cig wàll mirfaquha concoom li maftuulu lu ñu soreel la an nabaati zawri ci dënn bi gilan euh, gilan da naaga gilan dafa dëgër ba mel ni mbaam àll euh, arab yi daal faral di def loolu di niróoleeg seen gileem ci dëgëraay beeg duufaay bi ñu koy niróoleeg mbaam àll man dafa mel ni dañoo jël yàpp rek di ko ko sànni ndax réyaay bu ëpp bi mu ne diggante conc li ak dënn bi dafa soraay loolu tamit lu ñu tàggale ci gileem ka annama daanaka li nga xam ne faata raw na ay nay xaa ñaari bëtam wa masbaxaha ak rendikaayam mooy fi ñu koy rendee min xatmiha ci ak ñoxam khatmu moy barab bi nga xamne ne fi la ñuy ñox gi wa min al lihyayn eh, ak ci ñaari sikim yi bir tilu ab kay la comme xetu pic wala luy gor luñu mëna goré dal wa dañ né xar kanam bi nga xamne mo nek ci digënté bët ak fiñ koy rendé moy baat bi dafa dëgeur dëgeur ba melni pic bo xamne xam wañ lañ ko défaré ci dëgëraay wala mel ne xeer woo xam ne xeer wu dëgër la ndax birtiil danañ ko firee xeetu pëkki wala xeer woo xam ne xeer wu dëgër la xeer wu gudd te dëgër tumirru day rombale day jaarale mithla asibin naxli kem carub tàndarma daa xusalin bi boroomu rawaasoo maam ay ay ay ay ay rawaasu rawaas yu nekk ci kaw fii gharizin wala fii ghazirin ci ab batt boo xam ne lamtu xawwinhu sikkalu ko wàññiwu ko al axaalilu bën bëni axaalil kon jamu ixlil la ixlil mooy maxrajul laban fi soow mi di génne dana giléem gi day jël geenam bi di ko jaarale ci ginnaaw bi geen bi nag lay nirooleeg cerub tàndarma ci ab guddaay ak cib dëgëraay boo xam ne mu ne genn dafa am lu mel ni ay ay ay car ay ay car yu nekk ci gen bi maanaam dafa sëq daal genn daal dafa sëq ba noppi gudd dëgër mu ne genn boobu nag moom lay jël na di ko rombale ci battam boobu nga xam ni amul soow maanaam nekkul jamono yu ñu koy ratti ndax bu dee jamono yi muy nàmpal mën naa am dëgëraay bi day ci ci dox bu yàgg day day wàññeeku bu fekkee dafa tëbu tamit dëgëraay bi muy am ngir mën a dox day yàgg day day wàññeeku man nag jamono yii nag nekkul ci nàmpal nekkul tamit ci ëmb bu ko defee dee tax mu gën a mën a dox ci àll bi lu yàgg gën a amuk dëgër an waaw aji lunk bakkan la bakkan bi dafa lunk fii xarratayha nekk na ci ñaari noppam lil basiri ñeel ku xam bihaa ci giléem ayetxun ak gore ayetxun mooy karam mooy ak mbaax maanaam xam ne kii ci giléem gu baax fu baax la bokk ras bu baax la yor daal mubiinun bu leer wa fil xaddayni nekk na ci ñaari lex yi tashiilun ak ratax waaw ah, nee giléem gi bakkan bi dafa dëng nee na ku xam giléem dëgg-dëgg su ko xoolee daal ba setantal ko dana xam ne giléem gi giléem bu baax lool la te lexe tamit dafa ratax dafa nooy tax di dana gaaw ala yasaraatin ci ay ndëfañ mooy ay tànk mooy li tege ci suuf waxee te ñoom ndëfañ yooyu laaxiqatun way woos lañ mooy dañoo sew zawaabilun way lax lañ lax mooy loo xam ne amul yàpp daal yàpp yu bëriwul noonu massuhu na seenu laal al arda suuf si taxliilu ak yeweku ngiñ la muy ngiñ lu din deñ ngiñ lu tebbeeku dane giléem gi bu dee dox day gaaw lool te tànk yi dafa maanaam euh, ndëgg yooyu tege suuf dafa sew waaye dafa dëgër nag ba mel ni ab xeej ni mu ko yëkkatee di ko tegee ci suuf dafa gaaw lool nga ne boo dee xool da mel da sax giléem bi tegul tànk bi ci suuf ndax gaawee bu ëpp bi sumrul ajaayaati way zone ay siis lañ siis mooy ay sidit sidit yi jokk ci way wi zone mooy couleur boo xam ne day xaw a jege ñuul maanaam sidit yi sidit yi nga xam ne moo jokkoo ak wey dafa mel ne lu xaw a jege ak ñuul dëgër loolu nag yetruk na dañuy bàyyi alxasa doj yi man ñu way taqali ko ñu way tasaaroo lam yaqixin na du leen fegal ñoom sidid si sidid yooyu wala tànk yooyu tan ayilun ak dàllal tan ayilun ak solal ak dàll wala takk ci aw dàll ci weewu daaba ji boobu ruusel ak mi boppi jànje yi waaw dane giléem gi sidit yi dafa dëgër lool ba mel ni xeej yooyu nga xam ne day day zone noonu la nitu ci ab dëgëraay nee na bu jogee suuf si nag ni mu koy jogee day ànd ak doole moo tax bu jogee xeer yi xeer yi day tasaaroo day mokk tasaaroo mu ne ndëfal ñi nag dëgër gum dëgër tax na muy liy tegee ci suuf bi dox dëgër gum dëgër tax na aaju woowut ñu koy solal aw dàll dal yi koy mën a protéger ci xeer yi nga xam ne mooy nekk ci kaw jànj yi ndax dëgër na lool ka anna aw ba ziraiha daanaka dellu si ñaari tànki kanam yi isa ariqan dem ñaq na waqat la faa te muuru na te muuru na al asaqilu njonox ya njonox mooy li ngay seen ci montagne yi wala ci tëri bi bu naaju tàngee mel ne am ndox te boo demee ba àgg fa du doon dara bil xuuri ci doju ndaw yi waaw ah, nee na giléem gi tànki kanam yi day gaaw loolu buy dox lam koy nuraleel mi ngi ci kanam mu dee bu demee ba jamono ji tànk ba giléem bi ñaq nga xam ne boo dee xool montagne sax doo ko séen ndax ñonox li moo koy muur mooy ndox mi day mel ni li mel ni am ndox day day dem ba muur montagne yu ndaw yi may kon toll toll na ci digg naaju tàng yu jëri jëri mu ne jamono ji boo dee xool tànki kanam yi ni muy gaawee yow man ci bis boo xam ne ya vallu dana yendu bihi ci moom alxirba u kàkkatar kàkkatar xaywaan la bu ñu xam nga xam ne di couleur yi day day day day day day soppeeku daal bu nekkee ci maanaam couleur bu fu mu nekk daal def mel day yor couleur bu loola bu nekkee ci garab couleur garab googu la yor mustaxidan di aj tàng ka anna daaxiyahu daanaka caañaagam caañaag mooy côté bi jàkkaarloog jant bi maanaam bu taxawee côté bi féet ak jant bi loolu la ñu tuddee ab daaxiya mam luulun lu ñu gëlal la gël mooy lu ñu tàngal bi shams jant bi dina bis boo xam ne sax day tàng-tàng ba nga xam ne kàkkatar lu muy bëgg-bëgg aw tàngoor ndax daa bari sedd ci lu ñu wax teewul nee day mujj tàngoor wi day jégg dayoo ci moom ba du ko mën a dékku nga xam ne boo xoolee wet gi féeteeg jant bi day tàngee jër ba mel ne dañ ko timmale ci sawara ba tey indeegul li mu koy nirooleel gaawaayu gaawaayu ñaar tànk kanam yi ci la nekk man bis boo xam ne daal day tàng jër ba boo xoolee doju ndaw sax doo ko seen ndax ñonoxi li moo koy muur kàkkatar sax li muy mën a dékku dékku aw tàngoor du ko bëgg day dem ba mujj tàngoor du ko mën a dékku ndax day ëpp da koy ëpp doole nga ne boo làmbee wet gi mu ci jàkkaaroog jant bi day mel ni day mel ni mburu mu ñu teg ci ab taal te tàng jër wa qaala te wax na lil qawmi ñeel nit ñi xaadihim aji màng leen xaadi mooy kii jiital giléem yi leen woyal ngir ñu sawar ak yooyu moom lañ tudde alxaadi waxat jaala te tàmbali na wurqul janaadi bi way xuuni njëreel yi xuun mooy lu verte loo xam ne ñu def xaw a jeng jëm ci ñuul mooy ñuureel njëreel yi nga xam ne dañoo verte jëm ci ñuul yar kudd na ñi ngay yëngal ci seeni tànk alxasa jamraay xeer ye ñi ngay wax naan xiilu yandal leen mooy noppalu leen dalu leen waaw nee na bis boobu nag tàngooru metti na ba nga xam ne ki nga xam ne moo ji moo jiital gëréem di leen wayal sax daa mujj wax nit ñi te fekk na booba sax njéréel yi ñu ngi yëngal seen tànk yi ci xeer yi ngir taru tàngoor wi ñu ngi lay wax ngeen a dallu noppalu ndax tàngoor wi kat métti na àll bi wéet na te sori na am ndox te naag yi tamit sonn na lool ci muñ gi ñu muñ aw mar kon te ngeen dallu bu ko defee ñu mën a euh, gilee ñu mën a noppalu tuuti ba tàngoor wi wàcce ko shadda nahaari ci digg bëccëg bi ziraa aytalin ñaari xasa bi ab jigéen ju gudd la ziraa jooju mu wax mooy xabar yi ka anna aw ba jooju nga aw mooy ismu ka anna ziraa ji mooy xabar ji ziraa ay qalin ñaari xasa bi jigéen ju gudd la nasifin kuy ab jeek mooy jigéen joo xam ni eh, diggante waxambaane la ak dori xaamat taxaw na fa jaawo baxa muy tontonte ak moom nukk nun way ñàkke doom mooy koo xam ne lu doom ju mu am du dund masaakiilu way yaradal mooy ba tey jigéen joo xam ne dafa ñàkk doomam euh, nee na jamono jooju nga xam ne ñu ngi toll ci digg bëccëg bi giléem gi bu dee daw tànk kanam yi ni muy gaawee moom lay nuróoleeg gaawaayu wala yëngatub jigéen joo xam ne jigéen ju toll ci digg waxambaane la te njool di mbéj kanam gi ngir njaxeet lu mu am ci ñàkkum ñàkk doomam am demel ko antuk sagoom day sawar lool boole ko fu ne dafay jëm noonu muy sawaree nee na am yeneen moroom jigéenam yu ñëw di ko feelu ñoom itam ñoo xam dañoo ñàkk seeni doom dañuy faral di ñàkk seeni doom bu ko defee ne loolu day mel da koy gën a yokk day gën a yokk cawarteem moom ndaw soosu noonu muy yëngatee loxoom ak ni muy gaawee ak ni muy saware ne noonu la tànk gileem mel tànk kanam noonu la mel moom gileem bi bu demee ba digg naaj yi naaj yi gën metti lool kon nag rawatina bu demee ba nga xam ni ker gi sedd na kon kon fa lay gën a yéeme nawaaxatun ab dëjjeetu waakoon la mooy ku bari lu muy jooy ab néew la mu doomu doomam yu faatu jigéen ji la melal raxwatu dab ay ni ku yoore ñaari përëg la përëg li nekk ci diggante conc li ba ci mbagg mi diggante conc li ba ci mbagg mi loolu la ñuy tudde përëg laysa laxaa amut maaqulun am xel lamma naa bu mu tàggee ba mu xibaari ak faatu bikraha taawam ba an naa aw na way tàggee bikra mooy ki njëkk a ci doom moo xam góor la wala jigéen la waaye jigéen ji dafa nekk ku bari ay jooy ci am néew nee na përëg yi dafa yoore loxo yi dafa gaaw lool ci ni mu yëngatu xam daanaka du du nekk benn place fu mu toll mi ngi yëngatu te loolu kañ la mooy keroog ba nga xam ne dañ koo tàggee taawam boobu ne ko ne ko faatu na nee na ah, dafa mel ne amutum xel xelam dafa dem ba tax na coono yi muy daj du ko yëg mu ne giléem gi tam noonu la mel naaju lu metti metti mari lu metti metti nee na ma day mel ni du ko yëg du ko tee rek gën a sawar gën a mën a daw tafri day dagg allabaana dënn bi bi ka fayxaa ci ñaari tenxam wa madrauha te mbubbam mi mu shaqaqun lu ñu xotti la an taraqiha ci ay dindi baatam at taraqi jamu moom la wax dindi baat mooy yax yi dënd bi nga xam ne ah, yax yi nag ci dënd bi mooy yax yi nga xam ne daal fi la ñuy teg am am ràng wala bu dee nit la muy yax yi nga xam ne ci dënd bi fi lay teg bu dee bu takkee ab caq foofu la koy teg moom la ñu tuddee at tarquwa ñëw na ci alquran kalla isa balagati taraaqi raabilu ay sor la mooy dafa nekk ay daggit raabilu jamu rubulatun la mooy aw daggit aw daggit waa jigéen ji lay wax ne day dagg day xotti day xusi dënn bi mooy dagg ndax fi mu ne dafa mel ne dafa tàggu xelam yére yim sol dafa xotteeku def ay morso nga xam ne métti bi mu yëg ci yaram bi sax dem mel ne du ko yëg mu ne gileem gi tamit noonu la mel jamono ji nga xam ne naaj wi tàng na lool te métti